ఎక్కివారిని టు في SM Abonner te تكليك ci cloche de خار yi فيديو suñuy ni doore xibaaru bi réew mi ak kile di Ousmane Sonko ñu nga xamal ni dakkal na grève de la faim bi nga xam ni tàmbali woon na ko fanweeri fan ci weeru juillet ba ni si moom mi sax ñu mudd ko hospitalisé fële ci hôpital principal le 6 août moom mi le nag ki ñu xamal lu ni mel mooy euh, El Malick Ndiaye moom nga xam ne moom lépp lu jëm ci wàllu communication ci parti boo andi Pastef ginnaaw bu mu ko fësalee ci compte Twitter ñu leen di fàttali ñu leen di fàttali ni ki leen di Ousmane Sonko di leader bu Pastef moom ci boppam dañoo ko dañoo gàll ci moom ay tuuma yu jéggi dayoo jëm ci euh, loo xamante ni bii dayoo woote fitna jëm ci réew mi waaye lëkkaloo ak benn entreprise boo xamante ni bii ñu leen jàppee ni dañuy fexe. dañuy terroriser nit ñi maanaam ay terroriste lañ ak li nga xamante ni moom mooy euh, fexe bay nasaxale lii di état bu Sénégal. ci mbirum kile di Ousmane Sonko sax la ñuy deseet nii ndax kuréel gi nga xam ne moo lëkkale mboolem avocat yu koy layool ñu ngi woo état bu Sénégal di ko xamal nii daanaka wér gu yaramu kii di seen client bi di Ousmane Sonko jéggi na doyoo lool lool lool ñoom nag ñu ngi woo état bu Sénégal balaa lii di xam te mooy joote di xew ci réew